salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ànd ak Touba Argentine TV dina mbégte bu baax ànd ak yéen ci bis bi nga xam ni moom lañ leen doon annoncé muy édition 2017 bu Sonia Xasaay Brésil mu jagleel ko mbokk yi nga xam ni ñoo fare fii ci dëkk bu ñuy wax Nova Araçá ci teewaayu bépp daayira bu nekk Brésil ci fédération baa am solo bi nga xam ni moo leen lëkkale am ngeen di ren nag édition bi. donc ñu ngi àdd ngeen di teewlu ñu ngi ci le 18 yemoo ak ajuma le 19 di samedi la ñu war a amal journée xasida bi fii fii ñu nekk nag euh, ñu ngi fii ci waañ bi ngeen gis lay sàmm suñu mbokk Baay Faal yi boole liggéey waaye di tudd yàlla ngir rek lépp mbégte mu am solo mi nga xam ne moom la ñuy dund ci gis bi nga xam ni tey bis la boo xam ne du Seexul Xaadim la bis teewuñ ko ci bis yi ndax bu ñu delloo ci ay waxam fi mu jaar bari na karaama doyoon na diggam ak tubaab bi doyoon na liggéey bu rëy bi mu def waaye waxul loolu karaamati ak tijjat yi la wax sama mbindum loxo sama tedd ngol jëpp nee na ah, xasaay itam yi moom moo ko may muy migu murid yi nga gis ni mooy aajo faaju aajo gu murid yi moo taxit nag fépp foo xam ne rek murid nekk na fa ci Argentine yaa ngi am yéene di ñëw fi nga xam ne dina fa arasa ngeen gis liggéey yu am solo yooyu nga xam ni kon moom la mbokki Baye Fall yi di def waaye kenn ku ne yaa ngi jàkkee ci côté fas yéene rek def liggéey bi ba mu jàkk ci ay anam yoo xam ne yu mucc ayib la ngir gan yi nga xam ni it war nañu jóge fenn fu nekk suba incha allah ci réew mi bu ñëwee rek daal di mën a nekk ci condition yu baax waaye ñu daal mën a xewal lu xewal yu baax ñu baax jëwriñ ji Serigne Ass Guédé ak nga xam ni ñoom ñoo dalale fii di waa Novarasa ci demee ñoom sëñ Abdou Salam ñu ngi euh, suñu benn mbokk boo xam ne ñu ngi fii ci Kër Cheikhoul Khadim bu ko defee yaa ngi ma fekk maa ngi présenté liggéey bi euh, muy Moustapha yaakaar naa kenn du ci TFM Waara Cheikhoul Khadim bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah ngeen def yéen ñi nga xamante ni yéen seen télévision bi di Kër Cheikhoul Khadim TV ak yéen ñi xamante ne topp seen télévision bi di Touba Argentine TV ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar ñu ngi fi tey ci Brésil Touba Nova Rio Grande Sul li ko waral nag ñëpp xam nañ ko mooy bis bu màgg xamante ni mooy journée xasida ñu ko amal troisième édition fii ci Touba la Parasa nga gis ni wax dëgg yàlla mbokk Baye Fall yi ñu ngi ginnaaw di jàng lu am solo surtout baat laa ilaaha illallaah nga xamante ni baat bu baax baat bu sell féetu ko kaw ngeen gis ni journée xasida ñu ko amal suba incha allah ci samedi bi le fii ci Mabarasa waaye gis ngeen mbokk daal fu nga jóge nañ fa fépp ci pàcc yi nga xamante ni ñu ci fii ci Brésil jóge nañ fa Rio de Janeiro ñëw noonu ak seen pësté bu wax dëgg yàlla ni ko naan defee am jot jël seen vol avion ñëw fi yeneen mbokk taalibe bi jógee São Paulo egsi nañ ak i onibus ak yeneen mbokk taalibe bi nga xam te ni fépp fii la nga ak say onibus ak seen car ñi nga xamante ni avion lañ yor lañ dugg pour ñëw fi macha allah lépp rek pour sigil bisum Seexul Xadim lépp rek ngir jàpp ci bisum Serigne Touba Cheikh Mbamba Xaadimu Rasuul ngeen gis ne ñu ngi fii ci biir waañ bi ak sunu yaay Fall yi gis ngeen ngeen jàkkaaroo ñoom macha allah soxna Aida ak nekk fi ak soxna Khady ah ak euh, soxna Ami ñoom ñëpp na ci waañ macha allah jàpp ci liggéey bi ah, du def lu dul euh, bàyyi leen tuuti ngeen xool image yi xool sunu mbokk yaay Fall yi nekk ci waañ bi te di waajal bis mi nga xam te ne suba incha allah ci samedi bi ci sunna xasida fii ci Touba Nouveau Arafa ba tey comme ni leen ko waxee ñu ngi fii ci biir waañ bi tey ñu ngi fii ci Nouveau Arastane ni leen ko waxee ci ajuma ji suba di samedi bi ci journée xasida bi waaye boo ñëwee fii ci Nouveau Arastane day mel ni tey la bisu journée xasida bi ndax nit ñi mbooloo mi macha allah dëkk baa ngi fees dell boo fi ñëwee yaa ngi mel ni ku ne Touba kon lu def lu laaj euh, sunu jigéen ñee nga xamante ne ñoo nekk ci waañ bi di defar xewel yi soxna Ami ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. waaw ñu dëgg yàlla ci soo ba tey yéen ngi ci waañ bi macha allah Euh, ànd ak seen mbokk seen càmmañ yi Baye Fall yi fi nekk ci liggéey bi naka ngay sonne sa mbokk jigéen ne ci waañ bi. ah sëñ Touba moom loo ñu gis ne wax dëgg yàlla soobu tey toogoo leen benn yoon yéen a ngi jóge fa sori Potou à léegi sori na lool ak fii Novara Sarr waaye taxut bi nga ñëwee coono bi ngeen ànd da ngeen koo fàtte ngir liggéey Serigne Touba. waaw coono bi ñu am yëpp fàtte ko ndax sëñ Touba waaw na jërëjëf soxna Khady kon ñu jàll laajaat beneen yaay faal bi nga xamante moo nekk ci waañ bi soxna si soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay sëñ dëgg yàlla yéen a ngi ci waañ ba tey sonn ngeen lool ak fa ngeen jógee na ngeen fekk si seen mbokk yi nga xamante ni ñu ngi fii ci Navarasa yeneen yaay faal yi fi nekk ngeen àndal ñoom ci liggéey bi naka nga wax mbokk taal bi nga xamante ni ñu ngi ñëw ci journée xasida bi suba incha allah ci xéewal yi fi am wax leen ni dara du manqué macha allah. dëgg la waaw ñu ngi sant yàlla baax a ñu ñoo fi teewal daayira Porte à l'Agré jëriñ ñu woon fii pour bu ñëwee jàpp liggéey bi ndax ñun dara ñëw ñu rek lu Sëriñ Touba buñ déggee ni suñu xas am fii dañoo bàyyi la doon def lépp pour ñëw jàppale di xamal na gaay yi nga xam ne ñoom ay gan di ñëw fii dina xam ne bu fekk leen fii yéen dara manqué fi te bu ñëwee leen teeru teral leen wan leen ne Sëriñ moom lépp lu waay def ca kaw ca kanam rek nga amul tànk ginnaaw yu kanam rek la ni dugg nañ ci biir magasin yi nga xamante ni moo nekk ci biir waañ bi waaye gis nañ ni dara manque fi ginaar yeeg ndawal yeeg xéwal yëpp macha allah mi ngi fi daje naka naka ngay a wax mbokk taal bi nga xam te suba ci samedi bi incha allah fekk na ñëw ci journée xasida bi ngeen xam leen ni xéwal dina mat. waaw fii moom bi ñu ñëwee alhamdulilah rabil aalamiina dara manqué wu fi ndugg bi jaar yoon togg gi ñu ñëwee organisé na normal. ñoo ñu tëj tamit placé wu nan ba bu xamee ni ñi nga xam te ñu ngi ñëw fii bu ñëwee duna am benn jafe-jafe ndax dara mangiwu bi dañ leen teeru teral leen am nay dalluwaay ma macha allah fàggu yi tamit bari na lool ak xewal gi yëpp bari na saawaan baawaan waañu ñun ñi fi nekk bi ñëwee te ngeen ñu ko ci seen ñu di ko organiser li ngeen ñu jox nag dafa rëy lool ndax ñu ñëw rek ngeen jox ñu waañi ñu aakimoo ko loolu lu rëy la ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant Serigne Touba ndax ñun lépp Serigne Touba ñun lépp lu mën a def ci àdduna rek Serigne Touba moo tax ñu di ko comme ni leen ko waxee yéen nga xamante ni topp seen télévision bii di kuréel Khadim TV ak seen télévision bii Touba Argentine TV kon ni jàll suñu mbokk Baye Fall yi laaj leen ñoom it tànn seen xalaat ci journée xasida bi nga xamante fi la nekk Ah. Touba Argentine seen télévision bi Touba Argentine TV ak seen télévision bi di Kërëfër Khadim TV kon a a la pour wax bilaa wala a ñu gis ni foofu tey yéen ci liggéey fi ngeen jógee sori na lool muy pot à léegi bi ngeen ñëwee waañ mi ànd ak seen jigéen ñi yaay fàlli ci liggéey bi boole ko sikkar laa ilaaha illallaah waaw laa ilaaha illallaah mooy lépp ndaxte suñu xësee ba ñëw xam ne Serigne Touba moo ñu barke borom Touba Mbacke ndax Serigne Touba dañoo fàggul lépp ndaxte ñun dañoo war a am ay xéwal barke borom Touba moo tax moo tax mu yasir lahum bi la si taasaram fa kullu maa yasaltoo tey saraam ñun dañuy am xéwal force barke borom Touba ndax lépp Serigne Touba yàlla nañu yàlla defal jàmm sutura xéwal ci barke borom Touba képp ku fi ñëw ren lépp loo fi fas yàlla lépp aajo yëpp faju ci barke borom Touba naka nga gisee journée suba ci samedi leen incha mais boo xoolee dëkk ñu dafa mel ni journée xasida bi nga xam ne Serigne Touba ay tànkam du loolu léegi tànki kanam barke borom Touba su doon ginnaaw suba la a journée bële passé commencé nekk ci liggéey bi nga xam ne loolu Serigne Bamba rek mooy gën nit ñaa ngi bàyyi seen i liggéey wut ay acceptado a liggéey ñii ñoo xam ne ñooy dañuy jaay bàyyi sunu njaay lépp ñu xam ne nekkal ko fii ku tedd gi nga xam ne ku tedd gi lépp moom la waaw ñoo ngi tuub bu baax nag nga xam ne lépp Serigne Touba la lépp si xasida jërëjëf kon léegi ñu laaj euh, ki nga xamante ni mooy Cheikh Gaïndé Fatma mi nga xamante ni moo jiite waañ bi fii ci Touba Novarata ñu jox ko mu sant ci kàddu moom it mu soññ mbokk taal bi nga xam ne moom la bokk nekk ci dëkk bi lu war ci liggéey bi ci wàññi ba xéwali benn dara bañ ca manqué. waaw sëñ Safa ñi lay nuyu di la siyaare di la wax ne daal am nañ mbégte lool lool lool tey ci liñ gis ñi nga xam si dafa kawe sax suñu jot ndax boo xoolee Baye Fall yi fi mu nekk nii kenn ku ne ku gën a bëgg sa morom liggéey bi rek nga ne kii la daal waaw moom daal am nañ ci mbégte lool lool lool lool daal di xam ne daal lépp lépp daal Serigne Touba la waaw sant Serigne Touba bu wér a wér daal biñ laajee yéen mbokk taal bi li ñu da a nekk liggéey bi wax dëgg yàlla fu leen neex dugg lu leen neex laal mbégte moom wax dëgg yàlla noo ko mën a dundee ci dëkk waaw xam ñun tam mbégte mu ñu am ñoom rek am nañ mbégte mu ko ëpp ndaxte ñun tam lii loolu bëggoon xam nga ñun li nga doon jaaxle ci waañ rek xam nga suñu xaste bi nga xam si ne lu ma ne état yi Brésil ak mbooloo mu bari moomu mais boo dee ba am ba yor liggéey bi am ñëw tamit bëgg laa jàppale gën laa bëgg liggéey bi it daal da ngeen di gën a daal loolu loolu looloo tax ñu yaatal leen gis nañ leen daanaka topp seen ginnaaw maanaam na ni dugg naa léegi ci magasin yi nekk fii ci waañ bi waaye gis naa ni dara manque fi waaw ginnaaw rek ndawal ak yeneen naan ak yooyu noonu yëpp macha allah mel ne ko daal ba ku fi ñëw du mar du moom fàggu nañ ko bu baax moom loo koy moom à 100 pour cent moom fàggu nañ lépp moom xéwal moom boo xoolee rek waa ñi ni rek nga xam ne incha allah moom fii dara dara dara du fi manqué moom xéwal yi moom gars yi ci jot bu baax ci heure bi ko bëggee jot te dinañ ci jot dina dina xéwale loolu neex a xéwloo waaw dina mat incha allah daal jërëjëf yéen ñi xamante ni yéen seetaan seen bii di Kuréel Khadim TV ak seen télévision bii di Touba Argentine TV ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen xamal woon fii ci Novarasa ci waañ bi di leen bi nga xamante ni noonu la mbokk taalibe yi def pour waajal dëkk bi ñu jëm ci woon incha di sant bu baax baax nag waa Touba Argentine TV seen pëseef macha allah fu ñu jógee sori na lool wax dëgg yàlla ne xam na ne Argentine ak Brésil sori na waaye nag liggéey Serigne Touba rek moo la ñor ak lépp loo xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba xaar na soxla woon na ko waa Touba Argentine TV dañ ciy dox ndax xam nga ne Argentine sori na lool ak Brésil waaye nag bàyyi nañ seen yitte yëpp ñëw fekk si waa kuréel Cheikhoul Khadim TV ñu xam ne ñoo bokk lu ñuy liggéey muy liggéey Serigne Touba rek moo leen ñor ñuy kontaan bu baax a baax a baax di leen santaat baax yéen waa Touba Argentine TV seen liggéey rafet na lool képp ku ne fii ci Amérique du Latine bi gis na seen liggéey fépp Serigne Touba woote yéen nga fay taxaw fu fu fu Serigne Touba bëgg ab jullit dafa taxaw fu Serigne Touba bëgg lu baax rek boo nee fekk ko Touba Argentine kon boo li ñëwee fekk si waa kuréel Seexul Xadim TV ngeen bëgg a ànd ñoom ci liggéey bi lu def lu dul mbégti di leen sant di leen siyaar di leen jox dox daje incha allah rabbi ci kanam tuuti ay palato yoo xam te fësee noonu ko amal fii ci Touba Novarta lépp jëm ci journée xasida bi am suba incha allah ngeen jëf